Augustin Diatta ñu ngi lay nuyu. Euh, yow nga bokk ci syndicat initiative tourisme en Casamance tey ji saison touristique bi ubbi na ca Casamance ñu bëggoon a xam tey yaakaar bi fan la toll. yaakaar bi mu ngi mu yokk parce que ñun Casamance dañuy amoon na jafe-jafe yu bëre. Mhm. même dem na ba dem sax nga xam ne dañuy def ligne rouge mooy kenn mu dem Casamance. Mhm. ñi xëy si ak autorité yi. ak président ba gars yi ko donc tey tubaab bi commencé di ñëw. jóge mm-hmm. fa yoon yi ñoom Casamance enclavement a amoon doole trop. Mm-hmm. doon na yoon yi baaxuloon bateau bi amuloon après Aline Sitoé ñëw compagnie aviation yi am ñaar compagnie. Mm-hmm. tey ñu defar aéroport Cap Skirring et je crois que comme vol commencé di ñëw jóge bitim réew ñëw fii donc am nañu yaakaar ni at yi ñëw bu pare complètement ñu bëri nañu laajte ñëw ñoom ñooy jàppale donc na permettre ñu mën a. am ay client mm-hmm. et client bu ñëwee la ñuy permettre ñu ubbi hôtel ñu tëjoon parce que hôtel yi ba mm-hmm. mooy Kapsiri am na station am na Kafountine am na l'hôtel là Kafountine tout est fermé les deux grands hôtels sont fermés mu mm-hmm. Ziguinchor Moulom euh, Diolamay ainsi de suite donc euh, liggéey bi il faut ñu continuer si comme day am espoir. Mhm. tey saison bi ubbi na ak retard euh, ñu bëggoon a xam ndax euh, dina tax ba secteur bi gën a profiter ci li nga xam ne ñàkk na ko ci diiru ñaari at yi yim toog te liggéeyul. waaw am retard bi baax na si parce que dañu doon defar aéroport bi. Mhm. donc mënuloo mënuloo def lépp commencé am lépp donc nañu commencé woon aéroport bi. dañu commencé woon aéroport bi et puis euh, donc aéroport bi permettre. Euh, dañuy bëggoon na commencé par test bi. ñu mhm. def ko septembre octobre novembre. laa ñu ñu arrêté gars yi ot avion yi ñëw mais mois d' avril ñu dellu si ñu continuer donc naam retard bi tout ça et bu commencé tey dina am yaakaar permettre ñu ñëpp mën a am espoir. Mhm. yaakaaram na comme ni nga ko waxee waaye teewul euh, ba saison bi di ubbi euh, ñu gis ne ñoo ngi wax variant bu bees bi egsi na ci mim réew ndax li ni mel amul dara lumu mu gàllankoor. mais <laughs> ah, variant bi euh, du Sénégal rek ah <laughs> la du ñëpp la muy Dakar muy France muy euh, euh, muy Cotonou muy Washington tout ça donc loolu du tax mais ñu commencé croiser ñi xam ne non nañu nañ ñu fenn ñëpp ah et puis tourisme itam du tubaab ñi jógee bitim réew ñu fi nekk Sénégal ku nekk Kédougou mën nañoo Mbour ku nekk Mbour mën nañoo Ziguinchor nekk Ziguinchor mën na dem Saint-Louis donc il faut aussi ñi liggéey pour que Sénégal. bugg a Sénégal Sénégal visite Sénégal. Mm-hmm. en attendant euh, ñuy wax ci tourisme locale tey jii comme ni ma ko waxee sànq euh, Casamance mën nañoo wax ni hôtel yu bëri tëj nañu jëm ci Cap Skirring euh, foofa mën nañ ne tamit benn hôtel bu gën a mag. moo fa nekk tey di def tournée maanaam euh, moo fa yor comme hôtel bu weesoo tourisme euh, campement yeeg yeneen ya fa nekk tey nan lañ mën a def ngir saafara mbir mi. non mais bi mooy mooy euh, c'est vrai mooy suñu mooy train bi bu ubbee ñëpp ubbi bu tëjee ñëpp sox donc laa ñu ngi ñaan ñeneen ñi mun a ubbi tam. Mm-hmm. avec bu ñëwee naam opérateur yi intéressé ñëw état bi dimbali ñu. et puis ak suñu fonds de promotion touristique e et crédit hôtelier président bi def je crois que ça va permettre euh, au moins euh, mu ñu am koo xam ne day ubbi benn hôtel ou ñaar hôtel ñu ñaan suñu suñu partenaire aussi Racine Sy moo yore am na fi trois hôtels yu fi nekk yu tëj Ousmane Diouf sa may moo tam dafa tëj Kafountine le Calisa le Caro dañu tëj mais ñu yaakaar ne xaalis bu ñu mettre pour ñu relance tourisme bi dina am au moins ñaar ñetti loolu la ñu ñaan tout juste et puis aussi pour le le le comité de gestion de ces fonds. Mhm. ñun ñu Casamance parce que ñu ngi si commission bi et puis euh, ñu nekk deuxième station touristique et ou troisième euh, du Sénégal il n' pas question que euh, les gens de Dakar et Thiès se décident à la place des régions non là on n' pas d'accord ndax liñ leen jox moo doyul ci budget gi nga xam ne moom. budget touristique mooy bu Tambacounda. Uh-huh. Euh, Sine Sénégal oriental derrière Tambacounda Kédougou zone touristique euh, zone euh, l'autre là pôle touristique Saint-Louis ça sera Saint-Louis Podor Dagana ainsi de suite Thiès ça sera Thiès Mbour Casamance Ziguinchor Kolda et tout uh-huh. donc war nañu def ay quota pour chaque zone touristique quota yi duñu duñu duñu tolloo parce que réunion mais ku nekk région mën na gérer lu parce que lu ma xam. si Casamance xaw ma ko si. Agnam Kodaye mhm. ah, Agnam Kodaye tout à fait tout à fait loin. Mhm. les gens de Saint-Louis passe ce qui se passe dans les de la Casamance donc là il faut décentraliser décision yi. bu ñu nekk keneen nekk fële parce que ñoom ñu nekk Dakar ñu nekk Thiès à côté de la présidence ou les autres. yi mhm. décider suñu place ñoo bañ bëgguñu kon nañ jox région bu nekk sa décision ñaam ñu demee ko. ndax politique bi ñu teg wàllum tourisme jàpp nga ne ñoo ah mais nañu wax de boo amee lu la naxari da ngay wax ñoom ñoo xam ñoo yore décision bi ñoo yore lu ñu. ñoo yor décision bi mais yéenay acteurs yi yéenay exécutants yi maanaam yéen a nekk terrain bi. mais c'est ça mais lu ñu wax dañuy dañuy déglu mais nag nañu ne waaw mun nañu ne déet mais ñun lu ñuy xalaat loolu la ñu wax hmm. tey gis nañ ne jéego yi bokk na ci ASPT li mu sumb muy vendre destination bi ndax tey loolu euh, gis ngeen ci seen bopp. non non moom laa wax man ASPT de mu ngi liggéey liggéey mais liggéey bi doyul il faut ñu liggéey bu baax sur le plan international ñu liggéey lu baax sur le plan domestique mais ku amul xaalis bu doy pour liggéey comme comme waam les îles du Cap-Vert nga xam ne ñu nekk à côté comme tunisien yi looy def loo si mun mais ñoom tam am na foo mm-hmm. destination ñu ko defar. sànq yaa ngi koy wax tourisme ah. local. Euh, tey ndax uh-huh. ndax foog y' a aussi y' aussi un pour le tourisme local ñi impliqué aussi les acteurs locaux et les acteurs euh, locaux là. mais tey ndax gis nga ne sénégalais yi ñoo ngi gën di euh, yëngu ci mbir moomu di dem di xool yi di nemmeeku yenn diwaan yi. dina ñëw dina ñëw parce que yi am na ñoo xam ne am na moyen am na ñoo am moyen partout dans tous les pays du monde. donc euh, hôtel yi itam nañuy def diminuer seen tarif ñi xam muy demee donc ñëpp ñëw sim na bokk mais ñu waxtaan mais ku nekk bu toogee bureau bi décider euh, nga ne lii lay def lii lu baax. mais tey jii boo doon comparer tourisme local ba tey néew na ci wàllum tourisme international. waaw ba écoute c'est c'est compliqué moi je peux même pas rentrer dans <laughs> yow tey par exemple bu doon jël ci say gan ñan ngay gën a dalal. ñëpp lay dalal ah, ah, ah mais mais mais ñan ñooy gën a euh, bëri bon je veux dire. mais ñu gën di bëri mooy tubaab yu jógee à l'étranger. voilà mais ñu fexe douze mois sur douze mois Sénégal yi fa nekk. Mm-hmm. mais lépp liggéey la kon promotion la voir parce que ça donne c'est difficile de prendre décision là. d'accord nga wax ko amoon na ci benn waxtaan bi nga xam ne yow mii Augustin jaata nga doon ci proposé benn forme bu bees jëm ci tourisme euh, wax nga ci sax ba wax ci agriculture ni nga ko duppee mooy ferme rural tey jii foo toll ci proposition boobu ndax wuy si nañ la tamit mais moi je l'ai fait parce que moi j'ai formation en Suisse mm -hmm. on, avait un programme qui est très intéressant en Europe les gens font l'agriculture, voilà. le tourisme et l'élevage. Uh -huh. Et dans les camps villageois, peuvent le faire. Parce qu'il faut pas donc compter simplement que sur, sur le tourisme. S'il n'y a pas de tourisme, quest a am nañ suuf am nañu ndox am na lépp donc état bi war na voir ce problème qu'on appelle ferme rurale da ngay léppale gars yi def seen verger def seen élevage def seen tourisme de telle sorte toute l'année tu as di nga am li nga def et puis sax boo amee ferme bi boo amee client nga jël sa ginaar yi doo tubaab ñu lan la ñu war développer pour permettre gars yi nekk aw ma aw ma am nañu client ñu mm-hmm. ngi moo waral euh, saison bi daal di tardé tey jii aéroport boobu nu ñu yeesalaat lan la mën a apporter ci wàllum tourisme tey. loolu man soit tourisme. Mm-hmm. xam ne bi day permettre tubaab bi ñëw permettre les hommes daal atout la lu baax la. voilà. Mhm. Euh, tey euh, seen i ëllëg ci wàllum tourisme bi yaakaar yi. lu yaakaar. Mhm. yaakaar am na mais yaakaar tellement euh, on est très inquiet là parce que avec le corona là on sait pas où est-ce qu'on va. ñëpp la ku nekk kenn xamul fu dem suba lu xam suba kenn xamul lu ñu doon suba. Augustin Diatta ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup.